ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant di daanele ci apporter mon soutien à au footballeur Idrissa a Gueye parce que gis nga tubaab yi dañoo foog ni ñun ab mbalit lañu saa ñu jógee ne nos valeur ñoom rek am valeur ñun amuñu valeur de li ñu xalaatoon bi ñuy ñëw fii di ñu coloniser nañuy ñëw pour civiliser ñu